الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk yi gannaaw ba ñu sant suñu borom ci jullit daa war ku mu toll di sant yàlla da xéewal yu mag yi ko jagleel ca muy xéewalu islaam bi gën àdduna bi ci biiram ñu ngi seede ne kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom di seede ne sunu soppe ba yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu war a jëriñ ci moom ni ñuy jaamoo yàlla yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko topp ba ila yawmi din sunu xutba tey mi ngi jëm ci fàttali loo xam ne yelul moos ñu toog ab diir ca fàttali ko wunte ca fàttali wunte ko su ci sunu biir te loolu mooy lan mooy taxawaayu julli ci suñu diine ji ngan la wayu mbokk julit xam leen ne suñu borom yàlla day bim ñu jagleelee diine jii di lislaam ba mu joxoon aadama jox ko nuux jox ko muusa ibrahim jox ko mboolem yonit lam defoon mu daal di téye diine moom muy julli yàlla musul wàcce benn diine bu amul julli sunu borom subhanahu wa taala julli googee mu dogal ci ne képp koo xam ne sàmm na ko dana sàmm lislaamam ku ko sàggani dana sàggani lislaamam suñu boroom subhanahu wa taala ni ngal la way nit ñi taxawal leen julli mooy tax mu dox seen diggante ak ñaaw fii ak lépp lu bon te fàttaliku gañuy gañuy di fàttaliku yàlla loolu moo gën a mag lépp mbokk julli mooy lan julli mooy bàyyi sa itte yépp taxaw ci sa kanamu boroom di ko sabbaal di ko tagg di ko ñaan di ko jéggalu di ko màggal lii mooy lay jóge ci yow waaye it wala zikrullahi akbar jamono bi nga taxawee di julli tudd gën a sunu borom yàlla di tudd ca malaaka yu màgg ya moo gën a màgg yow tudd gi koy tudd comme nam saxe ci xadiis yu wér heure boo waxee alhamdulillah suñu borom ne malaaka yi sama jaam diwli ni may sant ba ba fatiha bi jeex suñu yàlla yóbboo alaxira yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na li ñuy jëkk a xool ci jëfi jaam bu ne muy ay julleem su dee ne julli ya baax na ñu nangu mboolem jëf ya fa tegu yépp su dee julli nga baaxul ñu rejeté delloo mboolem jëf ya fa tegu yépp loolee koor la wala aj ak lu mu mën a doon maadaama julli baaxul dara baaxatul lépp lañ koy delloo mbokk julli googee da ngay gis ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ñu ko son sant ñu wattu ko ci ay waxtoom wattu leen julli borom bi mu ne utal naa ko waxtu yu mu gërëm suñu borom moo moom temps muy wëlbët ci jamono nu mu ko neexee heure bu demee ba teqale diggante guddeeg bëccëg fajar jot na mu ne jóg leen julli heure buñ demee ba jant ba dem ca digg asamaan ba bay jàllar bi ko jëm sow muy isra mu ne jóg leen julli heure buñ demee ba jant ba jublu ca sow ba mooy commencé sedd mu ne jóg leen julli heure bu jant ba suuxee mu ne jóg leen julli timis heure buñ demee ba xonk xonk yam fa bàyyi woon jeex mu ne jóg leen julli gay moom ñii wër ba ci jamono moo ñu sant ñu ànd ak loolu su ko defee borom bi teg ca ne nag rawatina jullit diggu doomu ga la bari ci borom xam-xam yi lu ko firi mooy jullit takkusaan mooy jamono bi lamb ja di tëdd jamono ba lang ga am ci jigéen ña di daje jamono ba xew-xew yi gën a mag di am ñu bari fàtte seen borom ca marché yi gën a neex borom bi ni ngal la way bu mu tee ngeen wattu loolu nga xam ne muy julli googe borom bi bëgg na ci yu rëy loo xam ne bu doon benn mbugal amu ca sax doon na jar ji jullit du ko sàggani mu ne ñi nga xam ne day dañuy wattu seeni julli ñoom day daan leen yóbbu ca aljana ya di leen fa teral bal mbokk mu ne ñiy wattu seeni julli ñoom day aljana yi firdaws laa leen di jagleel te mbokk aljana téeméeri daraja la daraja bu nekk ak moroomam mi ngi toll ne diggante asamaan ak biddiw ya diggante suuf ak biddiw ya muy asamaan am naa firdaws moo fii te kaw borom bi nee na képp ko wattu say julli normal firdaws mooy sa wàccuwaay yal na yàlla boole ñu jam mbokk julit julli boobu xamal ne du wàcc doomu aadama fi yëg xelam mi ngi ci moom ay yow mbokk julit bu mu jëm ci àdduna ba kenn ca julli julli yeneen ci bi ak ibrahima ak ku yàlla ma sa yónni amuñu droit di teggil ab jam julli amul lenn lu ko mën remplacer loolee moo tax ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon wax ne ndal la waaye kenn ci yéen su ma nee taxaw julli na taxaw julli loolu lañ yàlla sant mu ne kenn ci yéen bu mënul na toog su dee mënta toog na tëdd jaaxaan julli maadaama sa xel mi ngi ànd ak yow waxtu julli jot na la nga ca man da nga koy def même bu lammiñ mënta yëngatu loolee kon dañuy gis feebar bu tax mu teggeeku la waaw ci jàng nag ñiy toll ci jamono guerre na doon jaas yi dal wala bomb yi takk ndax ñooñu julli teggeeku na ci yéen ci ñoom suñu borom lu ngi déedéet ngal la waay bu ngeen tiitee daw leen di julli ci seeni tànk julli leen ci seen warukaay ca heure bu ngeen demee ba am kóolute ngeen jullee nag na ma xam ne moom laa leen ko sante waaye julli moom waxtoom bu dara tax ngeen faat ko suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla ne ko même boo demoon ba jàkkaarloog noonu yi nga xam ne buñ ne woon rëb noonu yi dal seen kaw bu mu tax ngeen bàyyi julli xaajal armée bi ñaari xaaj benn bi ànd ak yow di julli bi ci def jàkkaarloog noonu yi bu ñooñu julli remplacer ñu doon jàkkaarloog noonu yi ña ca des ñëw mu gaa yi ana kon fan nga gisee benn ruxsa bu yàlla may doomu aadama ba mu bëgg a julli loolu mbokk amul ku la ko bëgg a gëmloo dalaa bëgg a ànd ak moom ngeen tàbbi naari jahannam bu ci am sax benn sikk sàkk suñu borom teggilu ko ku ci teggilu ko kii nga xam ne daa feebar allahuma ñu dul yombal na ko comme ni ma la ko waxee sànq soo mënul taxaw toogal wala sa tëdd ay tukki ji nekk ci jafe-jafe ndax moom mën naa bàyyi ay julli ba dellu këram suñu boroom déedéet suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nag wax ñu toog yombal mooy ya nga daan julli ñeenti rakka léegi may nañ la nga julli ko par ñaar ñaar bal bu dee da ngaa nekk ci yoon di dala ko jóg di dala ko jóg may nañ la nga boole la nga xam ne mooy tisbaar ak takkusaan julli ko ca waxtu benn ca ñoom ay waa ji nekk ci tukki diggante su tisbaar bi jotee ba baa sa jant bi so heure bu fi amee occasion mën na boole tisbaar ak takkusaan julli gee mën na koo boole timis ci waxtu timis wala mu bàyyi timis ba gee mu boole koo gee ngir yombal ba ko yàlla yombalal am naa bàyyi julli ga ngir xappati tukki abadan yàlla mayu ko benn jaam loo mbokk loolu moom muy julli lii moo tax ba mbokk borom xam-xam yi day dëppoo nañ ci ni ki bàyyi julli fekk moo ko tey jàpp ne moom julli waru ko ku mel nii day ab yéeféer na génn na ci lislaam bu doon jaar ci lislaam mi ngi fi di luway lislaam dañ koo war a jàpp yeew yóbbu tribunal tuub loo ko pour mu nangoo tuub su nanguwul a tuub ñu rey ko ci feer képp koo xam ne nii gis nañu ni naam gëm nga ne julli war na waaye dañ koo sàggani bu fi looy islam amoon bañ wax ko daal la duma ba nga fonk la nga xam ne mooy julli googee bal am na ci yenn borom xam-xam yi ne sax même ki gëm ne farata la fi du julli sax moo ki ko gëmul a yem ñoom ñëpp ay yéeféer lañu ala kulli xaal mbokk julli ñu ngi nii mooy li gën a màgg li ñuy jëfal yàlla ci kaw suuf mooy la yàlla gën a bëgg luñ koy jëfal ci kaw suuf abdullah ibnu mas'ud nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy defal yàlla lu ci yàlla gën a bëgg mu ne ko nga julli ca waxtu wa mu ne ko gannaaw loolu mu ne ko def njekk ci way jur yi mu ne ko gannaaw loolu mu ne ko def jihad fi sabilillah lii moo tax ba yonent bi ne diggante nit ki ak kéeféer jullee ko dox ku ko bàyyi yéeféer la kon loolu ma leen wax sànq ci borom xam-xam yi dëppoo nañ ca waxi borom xam-xam bi ci yonent bi alayhi salaam lañ ko jëlee daana waxi dig bi nekk suñu digganteeg yéeféer yi mooy julli ku ko bàyyi bàyyi nga diine allahuma sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax li lislaam bi jëkk a ñàkk mooy kóolute mooy nit ko wóor loolu lislaam bi jëkk a ñàkk ci société mi ca wóor mbokk bokk na ca fonk li nga xam ne moo dox sa diggante sa borom ca assala amaana la ak yeneen ak yi deme noonu waaye nag mu ne bu dee jëf yi ñuy jëfal yàlla la ca doomu aadama yi di mujj a bàyyi muy julli daan dund ci kaw suuf ba kenn dootu woor daan dund ba kenn dootu acc daan dund ba kenn dootu zax zakka amma buñ buñ demee nag ba nga xamee ne nii kenn julleetul ci kaw suuf loolu day wane ni islam fay na complètement lii moo tax ba suñu borom subhanahu wa taala day ba mu naree jël ab yeneen tam mu nekk ca lalu sukuraatam ba sahaaba yenn ya ka fekke woon nee na lan la doon wax ay waay maa ngi leen di dénk ngeen fonk julli maa ngi leen di dénk ngeen def njëkk ci jaam yi yàlla teg seeni loxo loolu la nekkoon di répété di répété ba làmmiñam ba biir sallallahu alayhi wa sallam ndénkaane baa ngoog moom mooy la gën a màgg lam doon dénkaane mooy la mujj ca lam doon dénkaane allahuma da ngay gis doomi julit bu tudd muhammad wala ibrahim nga gis ko mu sàgg ne ay julleem et pourtant day jàpp ne julit la ndax pour moom xol bi moo am solo xolam laab na ku bëggal nit ñi jàmm la kaza wa kaza wallahi cheytaane moo ko nax mbokk xol bu baax bu yàlla gërëm mënul ànd ak julli jëf julli woo képp ku bàyyi say julli xamal ne xol bu bon nga yor xol bu yàqu nga yor loolu bu ci am sax sikk sàkk suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa jëllale ña nga xam ne duñu julli waaye nee na ñan ñiy sàggali julli yi ki nga xam ne dina julli fajar julli timis maslan wala mu julli ñeenti yoon par jour wala heure bu ko neex lay julli suñu borom mu ne ko waylun lil musallin alladina hum an salatihim sahun alkaanga day ñeel na ñay julli alkaanga ñeel na ñay julli waaye di sàggale seeni julli ca loolu mooy imma doo julli ca waxtu wa imma doo matal julli ya imma doo ko defee naka sunna jàngalee ni ngi noonu donte ni loolu moom ab xutba spécial la laaj mbokk julit nga la waay bàyyi leen xel suñu borom subhanahu wa taala nee na waa sawara bu ñu leen tabbalee sawara waa ajjana di leen laaj ak malaaka ya leen di garde waw yéen nu ngeen def ba sàggan ba dugg sawara la ñuy jëkk a tontu muy ñun daawuñu julli képp ku dul julli yi sawara mooy sa ndey alaxira ñun day daawuñu julli ca lañ cay doog a teg ne daawuñu leen miskin dangan ànd nit ñi di riiréendoo rek di xuusandoo rek ca seen shirk yàgg bidaaya tey dañoo weddi woon ne bis penc amul lii kon mbokk day wan ne mandarga bay wane ne kii kat nitu sawara la mooy képp koo xam ne gis na ko di julli mbokk suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam julli googu daanañu wax ne képp koo xamee ne nii da koo fàtte ngalla waay na ko julli ca waxtu wam ko fàttali ko loolu dong moo ko mën a remplacer loolu dong muy fàtte wala nelaw amma yow employé bi nekk ci service bi di liggéey nga dégg ñu bëri di laaj waaw heure liggéey bi su ma bàyyi liggéey bi damay tooñ borom service bi mbokk xamal ne sa borom yàlla la jëkk a embauché sa borom yàlla ñu ne bind moo la jëkk service moo la jëkk dox service ca xiiwal yiy jóge ca moom suñ ko divisé woon un milliard de fois duñ ko méngaleeg li la service bi di fay kon julli mooy sa priorité ab jullit fépp fay liggéeyee xamalal ne day liggéey ne am na day quelques minutes ca mbokk julli yàggul wallahi julli yàggul la lay mën a seen service ba en général mooy ci sara takkusaan tey jii da ngay xool ba fagaroo ànd ak njàpp cinq minutes mën nga ci julli ci lu bu baax kon waxal fi nga ko seqal na man kat jullit la damay dem heure tel dem julli ji ngay julli ka jëm ca julli ga am na benn tubaab bu moomoon la nga xam ne mooy li nga xam ne otel ngor jaaraama bilal kam bi hafizahullah ca la daan liggéey da daan wax employé yi il faut prier mais il faut pas compter hein mi ngi noonu mooy bu jógee te dem leen julli waaye nag ku sëlmal na ñëw loolu kon mooy farata bi liggéeyu jaambur la naam julli jot na jàppal jël jëmal bi li asalaamaaleykum dégg sul ci liggéey bi am naa toog fa nag naan da ngay yor sa kurus wala yor say baaraam jëmale trente mille boobaa moom yaa ngi toog ndax loolu du farata waaye na ngeen ci bàyyi xel mbokk bu baax la nga xamee ne nag mooy li ëpp ci julli ñi biñ jëfe loolu benn jeune bu nekk États-Unis mi ngi nekk bi seen benn waaye dafa ñëw ci benn société bi mu ñëwee ñu embauché ko mu dem ci directeur bi na baax man tal judit laa dafa am heure fel danaa soxla dix minutes yu ma julli mu ne ko non loolu amul benn problème julli jot mu dem di julli def fa ay fan Sénégal yam fa fekkoon ñoom ñu ci bàyyi liggéey bi di julli directeur bi woo leen ne leen mais li ngeen di def mooy lan ñu ne ah dañuy julli comme ni mu ne non non non yàgg ngeen fi musu leen maa wax julli kay daal bu julli ma bàyyi ko waaye yéen ku fi julli naa la tax ñu bàyyi julli ga lan noo ko waral mooy fonk ñu woon la nga xam ne mooy seen diine lii kon mbokk jullit ngal la way bàyyi leen ci xel nekk ci service te mën a saa julli bàyyi ko ca yàlla tax boo ko bàyyee ca yàlla tax wallahi yàlla subhanahu wa taala wutal la loo xam ne nii moo ko gën foofu ñu ngi loolu suna benn mbokk boo xam ne aju yu bala yàlla na yàlla subhanahu wa taala jéggal ko yàlla na toowoon na ko muy liggéey ci benn hôtel julli lañ ko fa dàqee na am jaar na ci ay coono waaye bi muy faatu yàlla ubbil na ko bunti xéewalam ci mercedes am ci la faatoo ci jamono bi muy liggéey ci hôtel ba paas sax léeg-léeg da ko daan liggéey kon bépp liggéey boo xam ne dañ naan ne fii moom doo fi julli julli du liggéey liggéey bu mel noonu nga la waay ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax ay yéen mbokk julit xam leen ne ngay ku fonk julleem yàlla subhanahu wa taala yombal ay mbiram sunu borom moo ne dee leen dimbali koo ci julli julli googu doon benn ordonnance boo xam ne suñu borom yàlla moo la ko wutal heure boo xamee ne fonk nga ko jox ko ciram wallahi yàlla dana yombal sa dund dana féexal sa dund dana la yaatalal loolu moo tax ba yow ñu am xel ngar la waay loolu bu ko yemeelee ci yow kese yonent bi salallahu alayhi wa sallam day suñu borom moo ko digal na ko wa'mur ahlaka bi salaati wastabir alayha la nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu li taqwa taxawalul julli te dénk ko sa njaboot laa di mën a wërsëg mën naa leen di wërsëgal mun ko rafet ñi ragal yàlla ñoo koy yor ay yow père de famille yàlla la sant nga dox sa digganteeg sa njaboot safara loolee la la koy may fexeel ñu respecté seen heure julli buñ ko sànq di ko julli na yàlla bëgge rawatina njaboot gu jigéen gi te njaboot gu jigéen googee fa leen seytaane jaare yàq seen julli mooy col gu bon ga ñuy sol te doom bu jigéen bu génn sol ab pantalon sol ab xambateen dem a ak bopp neenam kooku bu waxtu julli jotee fan lay jullee loolee kon ngeen bàyyi ci xel bu baax suñu borom yàlla dañu koy laaj yowmal qiyaama bu kenn ci yéen jóg di julli bàyyi waa kër gi di nelaw yee leen ngeen ànd jóg julli day wàcce jàmm ak barke ci kër gi su dee jàkka jege na leen dem leen julli ji ca jàkka ga képp koo xam ne yaa ngi dëkk ak jàkka di dégg nodd te doo julli ji loolee day ibnu masud nee ne ca jamono yonent bi naafiq yi dong nga lañ gis ñu ko daan def bal daa nga gis ku feebare këram sax ñu lëngu ko indi ko taxawal ko ci sàppe bi loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax rawatina ñi nga xam ne ajjuma ba ajjuma la ñuy dem juma ay yéen mbokk julit jumaa ji ak beneen bu dul moom tabaxuñ ko woon pour ajjuma dañ koo tabax pour waxtu julli juróom yépp ngan la waay ni la yàlla xiiwale ba ngay dem ajjuma yow mi góor bi majeur xamal ne farata la ci yewit te la nga xam ne mooy yeneen waxtu ya nga xam ne moo sa topp lépp lii ñu bokk bàyyi ci xel bu baax su ko defee ngan la waay nañu góorgóorluwaat julli ngi nii mooy suñu ordonnance lépp lu la tëj ci diine ji ci mënoo koo jëfe wala bakkaar bu mënta bàyyi contrôlé waatal sa bopp waaye bu dee julli nga na yonent bi alayhi salaam doon jullee dana la yombalal lépp lu yàlla santaane ci yow dana dox sa diggante lépp lu yàlla araamal ci yow loola tax suñu borom wax ne inna salaata mooy nam santaane woon yonente bi alei salatu wasalaam yonente boobu dana wax naan jullee leen ni ngeen ma gisee ngay jullee loolu kon mbokk nañu góorgóorluwaat jéem a sabaruwaat jàngiwaat naka la ñuy julli julli goo xam ne nii ah yàlla subhanahu wa taala dana tax mu gërëm ñu ci su boobaa de ubbi nañu bunt ba nga xam ne moo ñuy may texet àdduna moo ñuy may texet alaxira bal moo ñuy wàcce firdawsil aala yàlla yàlla boole ci ñi taxawal julli yàlla yàlla boole ci suñu njaboot lépp luy dox suñu diggante julli yàlla yàlla fegal ñu ko yàlla yàlla subhanahu wa taala rafetal suñu diine yàlla yàlla aaral ñu ko yàlla yàlla wàcce jàmm ci suñu njaboot wàcce ko suñu réew mbokk jamono ji ñuy wax ak yéen suñu mbokk yi nekk firi ñu ngi leen di rey par centaine par centaine mu jóge ci ay yéeféer yoo xam ne ñooy coalisé wu ci loolu amuñu ñeen leen lu dul ak ñaan yàlla yàlla xettali leen ak képp fu ñuy soñale julit ci kaw suuf te natt boobee yàlla bu ko yàlla indi suñu réew yàlla yàlla rafetal suñu mucc ñu ñëpp mu dajale ñu firdawsil ala wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain